donc looloo koy waral léeg-léeg parce que mm. li nekkoon Dakar. oui da ah, njëg gi dafa daan woon dem 175 mm-hmm. dem 200 cent. moo taxoon. Mm-hmm. léegi muy commencé di yàqu fi. Mm-hmm. ñu xaar ba nga xam ne pour booba loolu boo ko gisee ñu koy def pour dimbale ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi. ñu mën a am prix bu baax. parce que léeg-léeg boo ko fixé. mën nga mm. koo fixé fixe prix boo xam ne dafa yéeg. te fekk ne mën na wàcc. loolu la donc jeu de régulation boobu. Mm. moom mooy moom mooy dox engrais fixé ablo ablo ablo loxo fixé woon loxo loxo <laughs> entre guillemets euh, parce que aussi euh, ndariñu jaaykat bi ndariñu jënd kat bi. waaw parce que xam nga léeg-léeg yow min nga mën nga koo fixé nga fixé ko lo xam mo gëna kawé mhm. alors que tay mën nga mën na am ci marché bi lu gëna a néew. Ah. moom mo moo mo len leen eh. ci ndortel ba mois d'avril, mhm. avril. 200 francs, quinze deux cent soble bi da ko doon jar fi bo démé caaro yi lañ lay jaay. mais mais mais euh, aliment de base yi parce que balaa nga ne soble sax euh, mu fekk fa ceeb wala leneen xam naa ni sekkee ni ñëw dinañ ma summi sénégalais moo bëgg soble rek mais yeneen denrées yi aussi yëf yi dañoo dem ba nag léegi bu doon sax soble bi kese ñu mën a euh, xeex ak moom waaye boo laalee ceeb bi boo laalee diw gi boo laalee meew mi ku ci nee di def la la neex. waaw xam nga foofu nit ñi aussi nañu xam ne gis nga ci subvention rek. ci hmm. subvention ci pour li ñuy lekk. Ah. ñuy lekk de dugaluma ci dugaluma ci gaz bi. Mhm, denrée alimentaire rek. Mhm. li ñuy lekk rek muy denrée alimentaire. Mhm. état bi def na ci cent cinquante deux milliards. oui fi mu toll nii. dugg na ci parce que gaz bi ngay gis nii dafa waroon a yokk. état bi fi mu toll nii ci gaz bi mi ngi def quinze milliards par mois la ciy def. pour ñu téye prix gaz yi fi mu nekk nii. farine bi fi mu toll nii réew yi ñu wër yëpp foo ci dem saaku farine vingt cinq mille francs lay jar. ñun suñu saaku farine boo demee dix neuf mille deux cent lañ la koy jaay parce que état bi moo am benn euh, protocole bu mu def ak meunier yi. Uh-huh. di leen verser benn compensation. muy jaaykatu farine yi. donc pour ñu mën a jënd suñu saaku farine dix dix neuf mille deux cent. Uh-huh. parce que réew yi ñu wër yëpp. Uh-huh. dañoo def li tubaab di wax vérité de prix. ñoom moom la ñu def. le prix yi ni mu tëddee rek hmm. soo ñëwee. daal di xool fay sa droit de douane say taxe ak lépp. ak sa nga teg ko ci daal di jaay. loolu mm-hmm. ñun nag defuñu noonu parce que dañ koo téye parce que tey ji farine bi boo ko téyewul woon ah ñi sant Guèye <laughs> dootuñ mun a jot ci mburu mi parce que mburu day yokk ah moom yokk <laughs> yooyu yokk yooyu nag lañ doon bañ mm-hmm. moo tax état bi téye farine bi ci dix-neuf mille deux cent mais ñëpp xam nañ ne saaku farine fi mu toll nii mm-hmm. vingt cinq mille francs mooy prix bu baax bi mais ñun Sénégal ci boppam rek ñun ñoo fi am saaku farine buy jar dix-neuf mille deux cent ah. ndax euh, li nga xam ne mooy compensation bi nga xamné état bi mom la ci def. mais mais souvent état da fay nek victime aussi euh ci euh, njublang yi manam lu mu subventionné subventionné. Euh, ñenn ñi daan ci rax loo xamante ni finalement ca moom comme mooy njaboote ñëpp day dellu euh, dal ci ndoddam bu tabaski jotee euh, taxi ñu ne baale nañ ko daral yi defal nañ leen fa courant defal nañ fa li ci terewul am na sekke nag ngeewe lu jaay seen xar nenn ni njëg yi la même chose est-ce que jotul cet état là fëgg ci table ji nag pour au moins loolee muy def ne ay effort nga lim ko sànq téeméer ak juróom fukk ak ñaari milliards at mu ca ne egg ci poosu aji jëfandikoo bi xam nga foofu nag foofu problème mu nit parce que il faut nous donner sur waat suñu biir dire mentalité sénégalais ci non. événement ne mm-hmm. ah, alors que événement par exemple vous les fu vous bas les magal vous wala les euh, ah yow bu qu'un mm-hmm. euh, ah, vous man comme man mm-hmm. war man tam magal gi wala gàmm gi aussi tam <laughs> mën a mais mais l' état des l'état c'est des mesures. sëñ jaw dañ ko wara a am. sëñ Diaw da fi mu ne nii waaw loolu xam nga loolu dang koy wax ki nga xamni ak am nak talibé loolu waar la mais l'état c'est c' les mesures l'état c'est l'autorité est l' autorité. voilà moo tax nag <laughs> ñun ñu yabalon suñuy ndaw. ñu ah. dem nangu lépp. <laughs> parce que il s'est trouvé que même bi ñuy dem fofu mhm. soblee nga fa. Mhm. amna ci ñoo xam dañ li tubab di wax rétention de stock lañ defoon denc ko di créer benn sorte de pénurie hmm. artificielle foofu hmm. pour mën a yéegal prix bi te hmm. fekk jaaduwul woon ba fi may wax ak yow nii suñu ndaw yaa nga fa donc di veiller au grain parce que comme ñi ngi préparé màggal gi te suba sax am nañu réunion nationale uh-huh. fi au ministère de l'intérieur pour euh, màggal gu mag gi bu bu Tuubaa bi euh, ñu ñu bañ a fàttewaale ñam yu bon yi ñenn yi sërëxalaale su ay xew yu mag yu ne mel euh, di am aussi di ko jaayale xam nga finalement benn actualité bi laay bañ mu yóbbul ko beneen bi gis nga euh, saay-saay moom ku lay fexeel ni <laughs> ko wolof waxee. ku lay fexeel moo la mën. <laughs> gis nga foofu. <laughs> Hmm. parce bu événement bi jotee nii comme màggal gi. Hmm. corridor bi. Euh, police ak gendarmerie xam nga ñu ngi ci taxaw. Ah. mais terewul tamit dañuy collaborer ak suñu ndaw yi. Hmm. booy dugg Jurbel foofu. ñun dañ fay def check point. boo xam ne suñuy agent danañ fa taxaw. camion yi nga xam dañuy ñëw en collaboration avec gendarmerie ñu mën koo fouiller bu baax a baax a baax. su demee aussi fa muy décharger di encore. Mhm. ca magasin yañ koy defit ah. sunu ndaw dana fa ñëwaat ñu xool. xool denc ga très bien parce que il s'est trouvé que. Mhm. Euh, li nga xam ne mooy produit yu baaxul ñun dañoo gis ne chaque année day yokk. Mhm. parce que boo xoolee ren daanaka plus de 600 tonnes. yoo xam ne saisir nañ ko lakk ko muy loo xam ne valeur boo xam deux milliards. Hmm, c'est trop ça parce que daaw un milliard cinq la mais hmm. ren daanaka milliards. jaaxal mu donc donc produit yu bon mais euh, mesure mesure à yi euh, comme nous, parce que euh, ngi un milliard cinq milliards ça veut dire que a waaw xam nga nag consommation bi aussi day gën a yokk. Mhm. population bi lu gën a yokk consommation bi di yokk gën a yokk aussi. mais consommation nag moom ku def loolu criminel nga ah. yéen a ki jaay lu bon moom ab criminel la. xam nga réew moo xam ne xam nga li tubaab di wax souveraineté alimentaire amagoo ko. Mhm. lii ñun li ñuy wuti mooy sécurité alimentaire. te sécurité alimentaire boobu gis nga bi corona bi duggee léegi ak guerre Russie bi. ñun toujours dañuy anticiper te boo gisee boobaak léegi ci corona beeg léegi déggoo fenn ñu ne la lii manqué na wala lii manqué na. Mhm. parce que ñun toujours suñu prévision. Mhm. dañ koy def mu pour toujours trois mois. donc fii trois mois toujours ñun xam nañ lan moo fi nekk ci stock. Mhm. ak lan la ñu war a jéggaani mu ñëw ba nga xam ne dara du fi manqué ci dëkk bi. très bien parce que bu fekkee ne aussi même nous prix prix seer. mais nga génn aussi gisoo benen problème day dem. waaw benen mo gëna a méttee ñun dañu fexé ba nga xamné ne pénurie daal. Mhm. moom la ñuy bañ. loo boo bo loo lo mëna am produit bi mi ngi ci marché bi. Mhm. na mën ko jënd. pénurie dal baaxul. li mhm. tubaab di wax dal ñun dañuy liggéey. ba disponibilité produits alimentaires yi. man fa nek tous les jours. très bien euh xana aussi rek ngeen ngeen ngeen wut moyens yi nag ngir gungé li lépp parce que ministère du commerce mom gis nañ ni né kàttan gi des na te pourtant mooy secteur bi ëpp solo ci suñu réew yi mel ni suñu yoss yi nga xamné régler gounou la question alimentaire xam nga je pense que surtout sax affaire commerce aussi et ça relève de l'économie bu fekkee dañu bëgg émergence est-ce que mënu ñoo yok moyens yi. sur le point chercher voilà sax ci may wax ak yow ni bon hmm. du ba chat sax suñu bop waaye amna lo xamné fim dal ni génne nañ ko ci auto hmm yo xamné jagleel nañ ñuko kayit gi nga xam ne moom la ñu tuddee mise à disposition rek. Hmm. moom moo des <laughs> euh, ministre des finances signé ko pour euh, ñu daal di koy indi. mais Serigne Diaw euh, les les bras pour pour faire le travail nit ñi loxo yi ngeen di soxla ci terrain bi également. foo ne foo ne contrôle économique ñun la moo ñoom de juróom-ñaar lañ yor ci terrain bi donc ñu mën a mate koñ yëpp. am na am na recrutement bu jot a dugg. Ah. fi mu nii parce que dañu prévoir. Mm-hmm. recruter quarante vérificateurs. Ah, ci quarante yooyu quinze yi déjà ñëw nañu. Ah, commencé nañoo ñëw. donc euh, lim bi nag quarante la war a doon. Mm-hmm. mais quinze yi déjà jël nañ leen. <laughs> très bien euh, jël nañ seen ordre de service. Mm-hmm. ba pare. Ah. Euh, semaine bii lañ jël ordre de service d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, ba commencé nañu ñoom itam. Hmm. di nekk ci terrain bi. très bien benn poñ bu ndaw rek ñëpp yamuñu naam mais xam nga service boo gis am na ci ñu sant sekk ak njaween ñuy nangu ci wet ga euh, di ñàkkloo état bi xaalis maanaam ci juuti yi am na fa fu ne am na fa euh, booy ñëw di nangu ci borom bitig gi ci wet geneen gu wuuteeg gi nga waroon wer si jël ministère ba loolu waxuma la sax xaalis bi état bi ñàkk waaye day gën a encourager kiy def lu bon est-ce que mëneesu la gën a rendre mbir yi rigoureux foofu. waaw xam rigueur boobu ñun dañ koy def suñu biir parce que amul benn agent boo xam ne. tey jii génn dem yabaluma la. Mhm. lay yabal dama lay endroit précis. jox la document yi nga nga a remplir. Mhm. document chaque jour. me mhm. vérifier parce que agent bi ci terrain dafa am beneen contrôle aussi boo xam ne chef de brigade bi. Mhm. dana ko contrôler ba pare mu soog a ñëwaat ci chef de service bi aussi mu defaat deuxième contrôle bi. ok donc kii dem ci terrain bi danañ ko contrôler. Mhm. temps yii nag jàpp nañ fi ñoo xam ne. Mhm. Ah, ñu sant Guèye ak Seck <laughs> yoo xam ne dañu duggoon foofu. ay faux contrôleur waaw def yoo xam ne. <laughs> bon ba ñu teg leen loxo. très bien. def ko ñu leeral ni ñu bokkul ci corps bi lañu ay faux lañu wala. non non ay faux voilà am na koor boo demee am nay faux. dëgg <laughs> dëgg la donc euh, te kooku géy la sant. <laughs> jërëjëf sëñ Diaw en maa ngi lay gërëm bu baax di la sant ci jot gi nga xam ni may ngañ ko slëf ci euh, jamono yi nga war a na xéewlu ndékki laata dugg ci bureau bi monsieur le directeur du commerce intérieur euh, Serigne jaw ñu koy gërëm bu baax di ko sant ak yéen ñi doon teewlu waxtaan wi ak RFM. gërëm bu baax soxna Fama Dione ci réalisation bi gërëm Maysa ci digital gi Maysa euh ziar ce sa jigéen Yacine Pouy mu ngi ci mu ngi noos mu ngi euh, Abdou Thiam euh, à la technique 88 628 14 14 mbokk yi ñu waxtaanee ci réew mi rek yëkkati jotaay gi asalaamualeykum. alaykum salaam wa rahmatullah. <laughs> Bismillah Omar. El Hadj ngi leen nuyu di la ziare. <laughs> Omar Omar dal. xamna naa bu doon bu doon course mom mané am nga fond kan lay kuy sa taat kuy sa coach. <laughs> man son excellent président de la république. ah d' accord. waaw ayca <laughs> bisimilah. mooy sama coach quoi. Hmm, ah am nga am nga coach bu mat coach. <laughs> ah jeex na léegi nag sant yàlla la ñeen ko ñaan yàlla rek. waaw Alaaji Assane vraiment di rafetlu toujours liggéey bi. Mm-hmm. Eh, wax dëgg yàlla di direct commerce intérieur lu mu wax nii. di nuyu au passage monsieur kii Omar Diallo directeur du commerce en personne. Mm-hmm. vraiment eh, man man dama ko suivre lu bëri si rajo yi. Eh, Alaji Assane instant yi wax dëgg yàlla affaire bi métti na. quoi qu'on se dise buntu bi instant yi xaw ma lan la mais vraiment métti na trop. Mhm. te lu mu wax vraiment les prix là nañu gën a góorgóorlu vraiment les contrôles Alaji Assane. contrôleurs yi. puisque gars yi daal vraiment. commerçant yi am na ñoo xam ne daal Alaji Assane takk na suuf hmm? trop trop trop. trop si kenn mënu ko wax lépp. dëgg la dëgg la yàgg si antenne bi vraiment maa ngi lay gërëm sax di la ñaan

waaw di wax euh, li ñu dégg léegi ñor nañu lool. mu xam na bu ñu benn nawet yaakaar dara la. mais nag ñu ngi sant waa ji si ay leeralam. Mhm. mais dama la bëgg a wax ni am nañu ragal yàlla. Mhm. la leen jaayee saako soble vingt mille. Mhm. dañ ko dañ ne ñoom ñoom mille franc lañ koy jaayee ma gis koo xam ne nii. huit cent cinquante la ñëw ne askan wi lañ ko jënd mais. kooku noonu nga saari mel noonu dañ leen di félicité ndax li tax moo tax moo ñoom dañoo jëm ñoom si askan wi lañ bokk. dëgg la te dëkk bi mu mu war a jàppalante.

Mm-hmm. yàlla suñu borom ndax jaay it ëllëg loo peese dañ ko peesewaat. très bien merci loolu daal laa amoon tuuti lu ma ci wax rek jëf Alla. jërëjëf Modou jërëjëf asalaamaaleykum allo <laughs> allo Modou roccekoogul ñu xaar keneen asalaamaaleykum. kooku

nga di ko laaj coach sam ma koy laaj coach sam moo tax nee na ma président sama <laughs> Omar euh, nit ko fidèle la ci RFM euh, waaw. waaw waay non non c'est vrai man El dama jàpp mm-hmm. cat moo ñu dugg. Uh-huh. xam nga lu tax ma wax loolu. sama rak mm-hmm. joxe na macha allah explication yoo nga xam ni. Mm-hmm. Euh, ci yenn yi lu ci ëpp nit mën na ko dégg xel

amna information yu mu joxe mën naa la gisal ñaar ba ñett. ok xam nga wax na ni euh, soble bi ñu doon wax naan dañ koy jaay cinquante mille. oui nee na saagu quarante kilos la. Mm-hmm. man loolu tay la sugu dugg suma nopp waaw mm-hmm. ñëpp jàppoon na ni saagu 25 kilo la muy benn mm-hmm. ñaareel ba wax na ne oño bi ñu fi dencoon soble bi ñu dafa tawte loolu indi le perturbation oui boobu information tay la sugu dugg sama nopp ñetteel bi mu am ñaari yoo nga xam ni daf ko cus te dafa am solo laaj nga ko lu tax fixé wuñu ay prix mhm. arrêté bi ministre war a jël te organisation consommatrice di ko jooytu mhm. boo demee ci bitig bi tey bëgg daan nit ki am te amuloo base légale maanaam amul arrêté bu ñu fixé ni prix bi lii lay jar mhm. kooka doo ko mën a daan xanaa danga nga koy jaay doole beneen bi ci tegu wax na ni am nañu euh, ñaata quarante euh, jeunes quarante personnes yu ñu recruter. Mhm. loolu tamit parce que dégg na man information yi ma am. mooy à peu près trois cent et quelques euh, personnes lañu am. Mhm. te logiquement Sénégal ni mu toll ak li fi am ci ay boutiques dañu tirer sur la sonnette d'alarme maanaam dañuy wute woote wal ndax boo amee trois cent personnes. Mhm. dolli ci quarante muy trois cent quarante mënul contrôler ak koñ. Mm-hmm. bay contrôler Sénégal te yi ñuy wax naan nit ki dañu war a seet lii seet lii seet lii. Mm-hmm. ñu ci gën a bare duñ ko seet parce que mm-hmm. ñun ci suñu jëmmi bopp dama ko tàmbali sama bopp. maintenant am na loo. am na loo nga xam ni. Euh,

bari ci marché bi bu ko defee doo fi nekkati di waar benn commerçant naan ko jaayal nii c'est-à-dire yow boo jaayee nii sa morom jaayee nii la ñu ne la fa ñukk dem ca ñeneen ñi rek mais na doy na bari rek xëy na loolu foofu la combat bi war a nekk mais assez de contrôleur moom pour biti Sénégal amul benn état bu ko am non dëgg la dëgg la mais même bu am xam nga par exemple policiers yi doyuñu mhm. gendarme yi doyuñu militaires yi doyuñu ah fortiori donc ñii ngi wax ay 300. am un ma ne a fortiori benn ministère boo xam ne ay 300 agents la am pour tout toute l'étendue du territoire. Mhm. dama defoon proposition dama koy defaat. oui ci programme xëyu ndaw ñi bi président Macky Sall tëral. recruter des milliers de jeunes ni nous voulons leen environnement. ni mhm. voulons santé nous voulons leen faire ak fenen. Mhm. mais ministère du commerce ne ligue avec le ministère de l'Emploi sur la question. Nous mhm. recruter ko jeunes nous sommes ñu volontaires ou ay nekk assistants, comme ASP nous sommes ñuy taxawoo. ASP du ñu verbaliser mais sommes des policiers Nous sommes des solo nous sommes des nekk hôpitaux ainsi de suite. je pense que genre proposition il faut que nous osions deug la def yenn yi buñ ko defee. Mhm. parce que mënoo contrôler tant que amoo personnel. oui oui mënuloo am prix yu baax tant que amuloo contrôle. Mhm. parce que li ci nekk dañ koy wax di ko waxaat ñun duñu ñu dénoncé. Mhm. da ngay dëkk nit muy def lu doo nga ne rus naa ko rus nga ko wala boo soxlaa moo lay lebal. de sorte que bu defee dara doo ko dénoncé. mais jàpp naa ne il faudrait que le ministère fexe def affaire boobu am ay volontaires yu ñu mettre à le disposition rapidement. rapidement loolu ay ñaari fan ñetti fan une semaine mën nga ko régler bu ko defee ñu mën a assurer hmm. contrôle wax mais en tout cas en tout cas par anticipation gis nga àddina ci boppam sax au delà Sénégal fa mu jëmi mooy ci question alimentaire bi question wu njëg yi loolu bu ñu anticipé wul ci fànn woowu ah gouvernement bi ñëw moon nañ am benn ministre kese sax mooy bu ci wàllu njënd ak njaay ak lekk gi ndax lekk googee mooy vraiment moom la nit ñi tal dëgg hmm. faut que gouvernement bi crée ay man am na ñu ma wax wóoruma mhm. mais wax nañ ay techniciens ni ma avec huit milliards mën na ci créer quatre chambres froides mhm. bu ñu ko créer régler problème conservation conservation pomme terre bi ak soble bi je pense que c'est extrêmement important ñoom it nag comme say xarit la ñu nga wax ak ñoom jaaykat yi commerçant yi béykat yi aussi bu ñu di profité ci situation yi vraiment ñoom moo tax parce que am na lu ku koy def lu la dalit yaa ko teg sa bopp ah. mais dëgg la El Hadj ah, ku wax lii wax la ca des may mhm. daaw daaw lijjanti nañ leen fi benn marché pour ñu mënoon jaay seen seen seen produit Euh, en Russie. Mhm. ba ñu boole Max suma xarit Souleymane Anta Ndiaye. Mhm. ba ñu boole leen ak ku ko mënoon jënd ni leen lu ngeen bay ba jënd ko. Mhm. mais prix bañ ko fixé mooy prix ba nga xam ne boo demee ba Russie. loolu lañ ko fay jaay ñoom loolu lañ bëggoon waaj. moo moo daal jëndkat bi <laughs> vraiment <laughs> jërëjëf jërëjëf Ndiaye. en tout maa ngi félicité Serigne Diaw mais. nañu anticiper sur la communication. parce que boo bàyyee ba ñu fukki xelu nit ñi. wax leen loo nga xam ne wuute naa ak li am. dëgg la wëlbati bi rétablir dafay jafe. dëgg la jërëjëf Ndiaye

président bi soo fixé prix bu baax rek damay xaar li ma dépensé lépp bu dee ANACIM ma ma jaay <laughs> parce que dépense bi dafa métti. Ah. engrais bi dafa seer. te pour nga am ko problème la. nga defal ci yàlla rek xam nga joxe ñam daa baax de joxe ñam. <laughs> waaw waaw waaw <laughs> incha allah moom man moom maa ngi baax a baax. merci Fall bisimilah. vraiment maa ngi leen nuyu bu baax. jërëjëf. di nuyu vraiment ministère yi Mbacke Ndiaye ku génne léegi vraiment wax na wax bu rafet. Ah, ah. mais papa El Hadj Assane xam nga lan mooy nga nekk priorité. waaw. nañu indi nit ñi yi bëri ñu xupp ko Sénégal bu ñu mën a jàng. Mhm. bagage soo bëree rek wala. jaay bi du am benn problème bu doyee ca bëri rek ñëpp am jàmm. soo rek du am benn problème. Mhm. mais affaire bi si boppam moo amul. Mhm. barewul barewul loolu mooy indi problème bi yëpp mais yàlla xam na bu dee dañuy indi bu affaire bi bëri bëri bëri. jaay bi du am benn problème. dëgg la te leen na ma Papa El Hadj Assane yàlla xam na nit ñi du ñoo sonn. xaw ma nag. président ay conseillers am. ñu hmm. ngi koy wax loolu. Sénégal ñun ñii du ñoo sonn ñun ñoo du ñoo xiif. moom kay xam naa bu ma sañoon la ci des sax dootu ci xaar conseiller moom waaw. ah génn di dem di wax ak nit ñi wax ak ñëpp recevoir comme di dem seeti nit ñi comme ñu lay seet si. <laughs> kon vraiment comme comme nag président de la république. Hmm. maa ngi lancé appel fort. ah nit ñi di ñoo sonn. Hmm. Sénégal ñun ñii di ñoo xiif di ñoo sonn. na def lépp vraiment. dund bi nit ñi mun a lekk. Mhm. nit ñu suñu lekkee taluñu leneen lu dul lu dul lu dul lekk ñu ñoo di dama maa ngi lay gërëm xam naa njaañeen nag njangeen yaa ngi lay déglu tey jërëjëf Fall. <laughs> surtout si waa Dieng sant Dieng ñoo a sonn ah, vraiment <laughs> yàlla yàlla oyofal lépp ci boroom kër yi asalaamaaleykum. allo allo waa sëñ bi. Laaji Assane da ngeen def fay. ngi sant yàlla bu baax. ana yàlla xeb dool yi amin yow la eh, Ngunda Diop Mbos eh, Ngunda maa ngi lay ziar yal na yàlla nangu bu baax a baax jërëjëf Diop eh, ñu ngi lay jaajëfal liggéey bi am na solo lool comme ni ma koy faral di waxee rek alhamdulilah di jaajëfal RFM yëpp <laughs> merci beaucoup xam naa ni waxtaan wi am na solo lool parce que tey boo amee seetlu mhm. wax naa ko ci fan yi ñu génn président tey élection yi passé bokk na ci li tax pourcentage bi mu amone wàññeeku. parce que mm-hmm. dund bi rek la. Mm-hmm. c'est que du du sonko lañu bëgg du kenn lañu bëgg. c'est que dañu bëgg. Mm-hmm. suñu amé ñaar téeméer dem ci marché bi mëna a ndugg. Euh, na fexé ba mbir mi wàññeeku ci nit ñi. dëgg la euh, surtout nak ci all bi parce que all bi sonu nañ torop yalla xam na ni. Euh, bo fi ñëwé dañuy tol toolaan parce que tay bu fekkee né da nga bëgg bay ñetti wër toog juroom ñeenti wër bëgg dund. loolu kom du am. kon tay euh président na gëna taxaw all bi gën leen jappalé fexé fexe am ko wax sank Euh, ko maanaam prix na am. Mhm. parce que boo xamul li ngay jaayee. doo euh, xam ne nangam ji lañ ko war a jaayee saytu du mën a am kon euh, na fexe ay prix am ñu teg ko ci télévision yi ne prix lii nangam lay jar lii nangam lay jar su ko defee ñu mhm. yebal ay ndaw ne leen dem leen saytu ko. commerçant yi nañ ko fexe jaaye loolu dina bokk ci liy dimbale askan wi. Mhm. waaye tey bu subventionné woon génnee alal def ci dund bi. te ba pare saytuwul tegul prix. loolu du feeñ. kon na euh, gën a góorgóorlu ci wàllu. mbunda ñu taxaw un ñu taxaw alo waaw allo waaw ñu taxaw un peu comme euh, xëy na yaa ma gën a miin àll bi euh, c'est vrai que nawet bi yàggul mais yeneen weer yi pour dundee ko est-ce que avec bien sûr njàppale état wala njàppale ONG yi amul façon wu soppar ñi ñoom ñu reconvertir wu nekk yeneen xeetu liggéeykat fi léegi nawet beneen di ñëw n'est-ce pas dina am ñu ngi ci. waaw loolu euh, état bi rek lañ cee xaar. waaw bu amul laaj na ndimbal ci wàllu ki bay ba pare. et cetera am leneen lu mu jàpp wala dem defi càmm wala leneen ba nawet ñëwaat et cetera voilà. loolu li ko li ko mën a indi mooy ñu fexe mbayum noor am. Euh, parce que loolu tamit accompagner. état lay toog mooy comme yàlla def na am nañ àll bu yaatu. fii rek ci Sénégal. Euh, la ñu am àll boo xamante ni nekkul ay xeer nekkul dara dafa tàlli ñaret. nga xam ni boo boo gajjee ngeer. da ngay daati bay mm-hmm. ji rek bay mm-hmm. euh, am da kooku yaakaar naa ni bu ñu leen sampalee ay satadoo ay forage yu bari ci àll bi mm-hmm. euh, fexee jël ay ndaw ñu defal leen ay barbar yoo xamante ne si euh, dinañ fa man di bay noo loolu dina Eh, ko mën a am loolu hmm. dina tax tey hmm. fay ñetti weer bi dundee ko ci hmm. eh, juróom-ñeenti weer loolu jeex très bien jërëjëf eh, parce que loolu du indi kom maa ngi leen di sant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf mon cheikh jërëjëf yóbbante àq la ASP am na ku yëglu léegi nee na bu sañoon président gouvernement bi seen kilifa xoolaat fukki junni yi ñu leen di jox daal buñ ko mënee yokk ndax jamono neexul wax nañ dëgg <laughs> n'est-ce pas Abdou Abdou jël micro bi wax yow technicien yi lu ngeen bëgg fi RFM 88 600 28 14 14 wa alaikum salaam wa rahmatullah. khas <laughs> laaj. maa lay ziar way maa ngi lay delloo ziar bax bax ya ngi waajal magal gi. a ah, ngi lay séntu dafa na la dal ba pare de moom. Eh, nga budget bi budget magal est-ce que poos yi fees na. <laughs> ah say saa eh. dafa na la dal bi dal bu bax mo yow man adima ñew yeb da ngay wër lok man bir Touba di daw. jox du agn du rer man kay budul woon Youssou Ndour ak RFM moom ma tumuraanke Mbàkke. ah kon loolu moom aw xew mag la kon. aja bisimilah. waaw ñu ngi lay di jaare sama soppi boobu génn léegi El Hadj ministre Sëñ Mbacke Ndiaye. Sëñ Mbacke ministre. Mhm. sama xarit Serigne Maodo Malick Mbaye. dëgg la ndeysaan. El Hadj li ngay wax lu am solo waaye man tey damay taxaw tuut sama dëkk bi bool El Hadj yi sax xam ne màggal gi daanaka bentoo la quinze ba le seize lay doon. Mhm. ñun benn route nationale lañ am bu jugee Mbacke jëm Touba. Uh-huh. alaaji oto mënu fa daw vingt heures laa wax vingt. mënu ko uh-huh. mënu ko daw uh-huh. sëñ bi dafa toj yàqu. amuñu benn yoon fi ne yoon bi nga xam ne moo. jëm amul yoonu teggi. amul yoonu teggi moom yoonu teggi moom ay pax am ndox. Hmm. bëgg ci dem sax gis naa plat arsec bi daanaka am na ay oto yu ñëw doon manque mais comme kër yi dañoo am ndox. dañ naan kër yi ñoo gën a nekk euh, privé. mais li nga am solo mooy. Hmm. waa Ageroute. ak hmm. li nga xam ne mooy waa Promoville. dañoo war a gëstu département bu Mbacké. Mhm. alaaji Mbàkke xool ni mu toll ci Sénégal ndax dafa dama dafa am dëkk boo xam ne kenn dama ko muy Touba. Mhm. kon jàpp naa ne liggéey yu ñu a sumb war nañ ciy boole Mbàkke mais Mbàkke damay wax toujours Mbàkke lépp la rappelé police. Mhm. sapeur pompier mu amuñu ko amuñu gendarmerie gendarmerie police bi 1974 dañ ko immigré woon ba tey. dara yokkuwaate. tegaatuñ ci brique. gendarmerie bi noonu tribunal dañ koo luyee. et cetera et mais ba kañ nañu dimbali ñu yàlla defar bi ndax dëkk bi am solo ci réew dëkk boo xam da nga fay gañ même boo pertee am fi hmm. loo xam ne yow damay gañ ci dëkk sa doo fa am. Hmm. dëkk boobu da nga ko war a dooleel taxawu ko. xaas tey dafa manqué ñu moom meeting nga ci sama émission bi nga ko def ah. kon <laughs> waaw kon kon am ngeen di sañ-sañ de waa waa Mbacke. ah waaw vraiment kay war nañu ko defar moom wala wala nga wàcc ci terrain bi rek doo laaj mairie bi wala kii yéen tamit da ngeen toog seen kër yi rek di wax da ngeen di dem ngeen. lii de décision ya taxawal mouvement wala parti rek ci jàmm ak salaam nag laa wax de. doon <laughs> naa ko laaj mi joxuñu ma ko dañu koy jox sama frère quoi DG Galama mais moom it nag na nga ko laajee baaxul am fi mbooloo joxe xaalis la nit ñi foog nii moo moo koy joxe. <laughs> jërëjëf xaas jërëjëf ñu ngi Pape Mor Fall baax a baax ci njaaram. ndeysaan ñu gërëm ñëpp sant ñëpp euh, dans cinq minutes ñu yëkkati jotaay gi incha allah asalaamaaleykum. Eh, waaw kooku. salaamaaleykum taalibe Cheikh number one ah taalibe Cheikh bi laa nar a jël de boo moywul am na kuy wax ci suuf ku <laughs> taalibe Cheikh ngay jël number one parce que mosul woote ah aji ah, bismillah mais number one ñu lay ñu lay ziar ñu ngi lay nangul sa ziar bu baax baax alhamdulilah di la gërëm di la sant alhamdulilah di kontaan lool wax dëgg yàlla ci say mbir parce que wax dëgg yàlla yàlla dafa def chaque jour rek ñu dañ ndax ñu la rata tax jël yow. jërëjëf. Asan. Mm-hmm. damay jëkk a wax ci benn mbir mooy bi nga wax ci bi. Mm-hmm. Alaaji Asan. Mm-hmm. waaye nañu dimbali nit ñi dimbali suñu bopp ci xoolaat li ñuy def. nañu état bi dimbali Alaaji Asan. jamono ji ku jël nit naan yaa ngi koy liggéeyloo. weer dee nga di yaa koy fay cinquante mille. waaye as yàlla Asan euh, citoyen citoyen la. doomu ay nit lañu nan ngay ci réew xam da na mm-hmm. million deux million, mm-hmm. am ñu am salaire am am cinq million, mm-hmm. yow nga nit koy nangul naa la xalaat bi de mais ñu nuancer un peu euh, ma duggal ci euh, aspect volontariat bi aussi xam nga aussi yalla deug la bëgg Euh, au départ euh, voilà loolu dama ko wax en passant rek quoi mais ku ne yokk nga bëgg ku ne dund nga bëgg gaa moom mais bu bu ñu fàttee ci mhm. volontariat mel mhm. su bañ a sàcc non du lay sax mais aussi il faut le mettre sur la bu ñuy discuter parce que nit aussi booy wax da ngay wax rek li li ne waaw ah, ah, daal man lu jaar lu jaar lu jaar jaadu ngay wax yow yow li jaadu ngay wax lu jaadu la waaw mhm. lu jaadu ngay wax li jaadu oui euh, beneen bi ci des mooy li li nga wax sànq. na mhm. nga wax na nga couleur wax bi. parce que man je suis un ex agent de la caisse de péréquation. Mhm. mais ci jamono yi ñu doon euh, indi euh, libéralisation. Mhm. jamono yooyu boobu contrôle économique moo ne woon ci dëkk bi. yore ay agents. di contrôler di dem ak kenn mën nangu kenn ñemewul sax. amul fitu def lu dul noonu. Mhm. bitig boo dugg da ngay fekk ñu étiqueté prix ba la muy jaar. bu ñu ñëwee wax ñoom ñu laaj la de mais bu ñu ñëwee fekk étiqueté woo prix bi rek. Mhm. dañ dañ day lay amandé. Mhm. mais dem ba ñu indi ñu ni dañuy libéraliser bu ñu nee dañuy libéraliser indi woon na coow lu rëy. mais ñu ni non bu ñu libéraliser marché bi mooy defar prix boppam. su fekkee si ci marchandise bi doy na. soo jaayee cent ban ma jaay cinquante dama nekk sa wet. yow yaay lambale. Mhm. doo jarle marché bi mooy defar prix mais ci kaw marché bi day doy. Mhm. kon yaakaar naa ni loolu nga wax sànq mooy li am. marchandise bi na doy. marchandise bi doyee. dëgg la du laaj agent du laaj mhm. dara. marché bi ci boppam mooy régulariser boppam. dëgg la marché bi ci boppam parce que bu fekkee ne ci ma àllaa ah, jàpp da ngay yor sa cantine ma yor sama cantine. nga jaay kilo pomme de terre juróom fukk may jaay kilo te ñu bokk même marchandise. yaa dul jarle yaa ciy jar na sax xaalis bi état bi di dépenser ci ay ay subvention mu dem importer indi lu bari teg ko ci marché foofu léegi ñu rek loolu mooy wax bi léegi ñu rek waaye fi mu ne nii dëkk bi fii ñu nekk nii mhm. waxuma biti yi de mais li fi ay taabal rek mhm. contrôle ay agent mënuñu ko contrôler waxuma la ay ay kenn mënu ko <laughs> ala jàppan ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant mais ñu ngi dellu ziar bu baax taalibi Cheikh di la yeetal bu baax nag suñu suñu suñu suñu suñu taalibi jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla raw jërëjëf kontaan nañu ci waxtaan woowu am na solo lool Euh, Wa commune bu Nguer Malal Ki xam naa ab euh, la jëm ci ministre euh, professeur Moussa Baldé ci walu mbay mi Nguer Malal nee nañ daal insectes yi gunóor yeeg yooyu moo tàmbalee yàq gàncax gi foofee ñu xawa jaxlé jaaxle si wala xet bu mu ci mëna doon aku mbay andul kon bu leen mënee ay temps doon am direction protection des végétaux DPV <laughs> je pense que mu ngi am ba et pour jàppale leen rek ci pompe Gek, xeex bi jëm ci yooyu gunóor yi war a yalla len yalla sam 9h20 sur la RFM ñu gërëm ñëpp ñu andalon ci waxtaan wi jéggu lu ñu nasoon euh, lu ni mel ci ca ta antu gërëm Abdou Thiam ci technique bi soxna Fama ci réalisation bi digital gi euh, may sa mbay tey alxamis incha 15h30 ni ñu ko baxo di défé ak yéen ci carton suñu borom seen émission yoon